Moutarde Chef Aïda, goûte et apprécie. moi, mon triangle de l'écran fromage ou l'écran buy T'es si te bàyyeekoo bonheur. meew bu neex ànd l'écran Filme Megel bi Le meilleur goût du chocolat, c'est mon choco. Existe aussi en verre. CCBM, industrie automobile, distributeur des marques Volkswagen, Aval, Credwell, Chérie, Lovell et Sinotroc. Un service à privates de qualité avec un dépannage mobile 7 jours sur 7. pool pour tous les jours et même les autres. By CCBM. Soklin, technologie pour baisse, ngir le set wecc arôme épicé resto ak sauce soja resto moui bagel jigen ni ci seen ce t-shirt c'est un petit garçon tout ce qu'il y a de plus normal et c'est un papa qui se dit ça, <laughs> c'est mon fils. Sunushopping.com, le marché digital qui vous simplifie la vie. Bravia Hôtel Ouagadougou, vous aimerez déposer vos valises chez nous. Téléphone 00 226 25 32 97 97. Rendez-vous sur comtrip.sn. Réservez vos logements de luxe et de qualité en un temps record. Trouvez vos appartements ou villas avec jacuzzi, piscine et peut-être même une plage privée. Radio Leral 96.1, encore plus proche de l'info, avec Radio Leral le poiler. Une femme, un mari remercie ses partenaires stylistes. Ika Complexe Sophia, IJab Store. Apel meja jàpp ñu ànd bëgg naa ñu làng bu ko jofee la lool dina ma gaañ takk ma buum ci baat tiri ma ñu ànd waaye bu mu saytu bu ëllëg dafa mat a sooraay nit ku ne tan nga war xam ki nga doon daawul bañ la la béyee bul découragé bul découragé may sa takkandeeru xol bul découragé bul découragé may sa takkandeeru xol une femme may Monsieur le j'ai toutes les informations sur là-haut. J'ai un dossier à RG J'ai judiciaire vierge aucun démêlé avec la justice mais il y a un problème dans le dossier C'est le ministre préféré C'est si nekkoon te ba léegi mi ngi le Boy, mun liggéey mais doom raam la quoi ma xalaat étranger étranger bu mu nekk mun ma maîtriser quoi day voyage trop organiser ma demandé ma dama koy wàcce yob ko ma mu gérer mën bi mu nek fi nan day doxan kon loolu jagal na lako jiné bu so la Dakar ku yek daanu. président vrai jinne nga. décrétez le couvre-feu demain de 20h à 5h du matin. Pour dire qu'une autorisation, à part les médecins bien sûr. C'est quoi le motif de m'aider dormir tout ne bah, pas comprend la Mon bébé.

joyeux anniversaire Diana, je te souhaite une très très longue vie dila la ñaanal gudd fan wér gu yaram dundal ba ko ah yalla yàlla defal jamm musul la ci nooxoole wax ju bari sax jaru ko allez bisous. allô. hello Dieye. c'est comment. bien mais on na du envoyé par WhatsApp va voir. si si gis a ko Doudou il est drôle. <laughs> bon t'inquiète pas Je vais me présenter un jour Inch'Allah. allah sama là. la. dafa là kay. allez enjoy tey. bisous prends soin de toi. bye. Laisse-moi te faire ton petit déjeuner. Ne touche à rien, t'inquiète même pas. Je te fais ton très bon lait et il est fait avec amour. La plus belle preuve d'amour. tu aimes, n'est-ce pas <laughs> Très bien. Bébé, mon bug, ce congé, hein, que tu te reposes. Boulal Dara, laisse-moi, je gère tout. Mm. D'accord mm. Yomi, quand tu sors le grand jeu, là, ne y a des Yo. Yo, Tamit. On ne peut plus se permettre d'être gentil dans ce pays-là sans qu'on soit accusé de quoi que ce soit yow dama la xam yow tamit je te connais mon chéri. bébé arrête-toi mais tu le mérites toi aussi. d'accord nekk di liggéey rek il faut que tu te reposes n'est-ce pas. Ah, bon je dois aller au travail. heure bi jot na ok. fais attention à toi avec le couvre-feu là. Encore tu pleures pour une histoire de love. Ils vont encore dire que Sam qu'il parle que d'amour, que d'amour. À tout à l'heure mon cœur. À tout à l'heure chérie. bilaay xamoon naa ko xamoon naa ni lay démé, sa jay metti bi xamoon naa ne vraiment yow sa metti metti bi yeb dugal na la ray raay rek moy wàcc nga. Autre question ay ray doq yu démé nag c'est juste que daf ma wo expliquer ma biram. ma expliquer ma lépp ma yëram ko man xaaral ma jappalé ko. jàppale wu la yow waate yow man loolu laa bëgg xam <laughs> eh ba naa la wax jour mariage bi waxtaan ak moom lu bëri de waxtaan ak moom lu bëri jërëjëf yàlla na yàlla fay loolu tax mu ñëw nii de ma xam naa loolu nii nga war a def di ma gërëm moo gën nga nekk di eh, ah, tëgg boo xam ne amul match peut être yow loolu daal eh, yow dem Paris yow ma may xale bi daf laa bëgg tey bu wax dëgg yàlla duur nañu wax ne dëgg munoo am ku ko gën bàyyi sa round yi ngay jël de gauche à droite nii di leen tëj yi yóbbuñ la fente dañ lay tardeel ñaata lañu woon du ñu woon kat ana Malcolm ak Samir tey nekkuñ seen jàmm xanaa du ñu woon ñeent tey ñu ngi nii war nañ mën am lu dëgër loo xam ne ñun suñu bopp war nañ war nañ mën a avancer tamit nañu ànd dëgg tey day anniversaire te damay dem waaw bonne chance du ma la fi bàyyi ñooy ànd lan même mooy def crochet non non non oui ma bu fi andi ay complication booy bi xoolal instant yi commencé na ma fàtte su ma fa demee nii xelam day nekkaat ci man. toogal ak moom ngeen waxtaan nga tegal ko li la métti lépp de A à Z mu xam comme ça mu rectifier ko yow nga bàyyi sa affaire booy yi booy màggal tuuti. am problème dinaa dem mais juste pour sàmm diggante yi rafetal loolu rek ma fay yóbbu te yaa tax may dem de. waaw nañ dem rek. mais du ma fa yàgg. kenn mënta yàgg fenn ndax fi mu doon nag couvre feu bi. nga dëgg yow da taluma ko ma un an de plus nag du ay foodee ah. mais nag 26 ans yaa ngi jëm mag nag. xale <laughs> waaye nag sama rakk nga sama xarit nga xam nga ni ku fa bii ma ñaay ko ah jàmm rek ngay am nag sama rakk ji. man moom maa lay ñaanal nga dund cent ans. amiin sans ordonnance. yow loo dund doyal dundal. <laughs> Ah, <laughs> moo tax ma ne dundal dundal

tey nag damay profité ci sa bés bi di la baalu àq ci lépp lu metti li mënu ma sa teg lii nii da ko mérité yow amoo morom. eh comme amul morom nag ne lañ ko. ambiance eh kon ambiance. Je sais pas si c'est le meilleur moment, mais je vais essayer plutôt. Je la vais de la gërëm car je crois que ça sa beaucoup dit de na ma fi mais leen moom mën naa tu es la plus belle fille du monde que j'ai jamais connue de ma life mon papa nag daana wax naan ku rafet dangaa baax quel père tel fils mais c'est un honneur pour moi d'être un ami, espérons un peu plus. Espérer lan bon plus. Plus moi oui. Et eh, dans ma maille. Mes frères, Nakala C'est comment Ça va Tranquille. Ouais. Les deux filles, vous vous connaissez Non, non. Je hmm. gis euh, ni nga ma sonalee ci vidéo bi ma c'est une personne importante à tes yeux C'est la ne bàyyi ma ñëw pour gën a surprise bi rek. mais suis spécial à toi frère mais comme fii le fait

allo allo eh fi nga nekkoon ba heure couvre feu bi passé fanaan fa xoolal je t'explique e, bu sonna la xay appel Ya ngay dégg sami eh fan kan jëm sama jabar la jëndal lek lan lool xana xanaa ci cour fa lay nek ah kon xaar waaw bàyyi ma delluwaat kon. taxawal ma xool sa pièce yi. ah grand man dama légal de. ma xool sa pièce rek sëñ bi nga bàyyi wax. man fii rek laay dem sama jabar rek laay jëndal lekk. heure bii fan lañu jëndee lekk heure bii. non ma loolu de dama ne sama kër yaay laay jëlalee sama reeru jabar bi loolu laa wax. eh xam nga lan la sa waxu golo yi bu ma ko waxaatee. waaw kon grand kon bàyyi ma dellu kon. oui ma topp ma ci waaw fi ñu dem fii laa dëkk man. di ma topp wala man defuma dara quand même man sama jabar rek laa doon dem jëndi lekk. topp ma jël ah. avancé la doo ma bàyyi rek ma kër ga rek mu jeex benn yoon. buy ma di nga noppaloo buy ma waaw ma dugg nii rek def. yow li ngay daw na de. le président mes respects. seen livreur bi gars yi ñàkk solo yi ngeen di bàyyi ñuy. ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy daw librement man benn gaañ bu responsable bi. dugal dugal bu lijjanti loolu. waaw waaw mais def ma nag bu ma brutaliser waaw defal nag bu ma eh, brutaliser laa la wax nga naan Halo? Maesa Bundugar? Oke. je dis que les filles t'apprécient, c'est vrai. Mais il n'y a pas que des compliments là et des gitchia. C'est Dieu fait tout. Ah bon À part son adversaire politique, il y ma des gens la may jojo bu ban gars yi ne nañ ko da nga sévère que yow américain nga et que da nga metti gis nga Sénégal li ñu a développer avant sunu mentalité moy selon culture de travail. da ngay da nga bëgg du américain la africain américain parce qu'ils sont très très intelligents ils ont une éthique. sama cas promo je suis sorti premier mais vu que situation euh, bi j'ai vu que les populations amatu amatuñu confiance sunu sunu politiciens yi ni ngi xiiroo ni ngi ŋaayoo ni ku nekk ni génne sa mboot et je dis quelque chose nekkoon président du sa sama mbëbët bravo quel parcours anyway anyway loolu indi ma fii dama ñëw pour nu waxtaan meen mais xanaa xamoon ne ñu ngi nekk di waxtaan ne ni sax moom a gënal ka nga ñëw ci wax ay menaces code loolu damay tiit oh. Don't bëgg nga free bay ak man nga free anyway yo, lu tax amoo jëkkër ba léegi. gisaguma doy. yaa ngi set boo seetee li nga bëgg a rek mais quand même. ma allo ngi c'est la première fois ma taxaw ci kanam jigéen je I love you. attends es là et la première dame.

Dapal majapa nyo ando Pagkana nyo langga Buko chafe lalo di na magay Takamabum chibat Tiri man nyo ando Wae bumusay ito buhunyap Lloyd the way that no pagumanganyo bai puljai alat alata mata sorai nikune tangawar ferre khamtinga don dagul panlano be bul de courage bul de courage mais ataqander khol bul de courage bul de courage mai sa takandero kol fama mai